salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey la vendredi di 21 mai 2021 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi waaye balaa loolee yow mii di ñu suivre bu dee abonné goo ñu ngi lay ñaan nga abone nga laal cloche de notification bi nga xam lu ñu dugal rek nga mën ci jot ñu dooree ko ak record yéenekaay bu group fu Futur Média rëg-rëg la fësal ci xët bu njëkk wa ak kii di guy gi nee na rëg-rëg guy gi la guerre des mots xeexu lan làmmiñ wala xeexu wax ju sew ba ma ngay waaj a la dimanche la ñuy jàkkaarloo seen jàkkaarloo bu njëkk ginnaaw bu combat ba taxawee loolee nag ka koy animé mooy Malick Thiandoum ma nekkoon ca ITV wala e moom kat dem na ca TFM génnam gu njëkk nag dimanche dañ koy xaar ca TFM moom mii di Malick Thiandoum di doomu ngay Mexe ñu jëw nag ci football bi ñii di waa Paris Saint-Germain ginnaaw bi ngeen déggee ca fan yële ñu ne kii di. Idrissa Gana Gueye dañ koy jaay loolee teg nañ ko ci suuf ndax lan kii di Idrissa Gana Gueye fan yu mujj yi wala match yu mujj yi doxal na dëgg dëgg dëgg ba tax na gars yi daal nee nañ jaayeetuñ kan kii di Idrissa Gana Gueye di doomu Sénégal waaye kii di frank Kanouté di doomu senegal nekk fële ci Bruges cercle Bruges day jongante moom mi kat dafa opéré ma nga ca France sax di faju journal bi xamal nañu ne moom mii kat ñaari match amical yi Sénégal war a am nag ñaar la Sénégal Zambie lay jàkkaar lool ak Cap Vert loolee Franck Kanouté du ci bokk. ñu jugee record yéenekaay jël stade yéenekaay stade yéenekaay dafa fësal Lions yi ñi nga xamante ni à l'extérieur la ñu ne maanaam ci biti réew maanaam ñi Angleterre la ñu ne ñii itali wala kii itali kii France. loole nag kii di Edouard Mendy moom lañ cey njëkk a jël ndax Edouard Mendy ñoom ak Chelsea la ñu bëgg lenn képp la muy lan des ca troisième place ba ngir mën a assurer Ligue des champions déwén ñu mën a dem. waaye kii di Kalidou Koulibaly moom nekk ca Naples ca itaali moom lenn képp la bëgg gagné ngir lan assuré nekk troisième place wala deuxième place loolu la bëgg ngir mën a qualifier Ligue des champions déwén waaye kii di Idrissa Gana Gueye ak doomu ndeyam di Abdou Lahad Diallo ñoom duble la ñu bëgg ginnaaw bi ñu jëlee coupe de France barki démb ci Monaco dañoo bëgg lan seen match bii di ñëw ñu fexe gañe xaar nag ba xam Lille nu muy def ñu mën a doublé nag Ligue 1 bu France ba ak lan lii di Coupe de France waaye kii di Sadio Mané ñancoo ñoom ak Liverpool ak ña ñuy àndal lenn képp lañ bëgg quatrième place bi ñu ne faax toog ñu gën confirmer ko dëggal ko toogandi ca ndax déwén ku leen wokk ca Ligue des champions ba rek ñu xuri la. ñu jugee Sénégal ne coow dem France fekk fa l'équipe l'équipe nag ca Lyon la dem gone Jean Michel Aulas yi jël kan kii di doomu néerlandais bi wala doomu Pays-Bas bi di Memphis Depay ma ngay tàggatoo de nee na ici c'était ma maison loolu la wax nee na fii sama kër la woon bëgg naa leen lool nag waaye nag bu saison bi jeexee damay jóge fii ci lion ma ngay tàggatoo de waaye nag laaj nañ ko ne ko foo jëm mu ne ñi ma bëgg bari nañ de ma lim ci rek Barcelone bëgg na ma ak ñeneen waaye nag man xamaguma fu may dem nañu yónni yàgg yàgg bawul dara waaye man daal li ma leen mën a xamal man mii di fis de Depay damay jóge fii ci lion waaye fa may dem nag loolee ëllëg lay leer ñu jugee France ne coow wutali itali wàcc Rome jël Corriere dello Sport Corriere dello Sport ne na loo tente sa chance ma ngay jeexi nag wër wërsëgam kañ weekend bii daal moom day ñaan yàlla gañe bu gañee ñaan Milan daanu Atalanta dóor Milan loole su amee rek moom mii di Andrea Pirlo équipe am bii di Juve déwén mën naa dem ca Ligue des ba loola nag moo ko dese na ginnaaw bi mu jëlee ñaari coupe bu qualifié Ligue des Champions rek mën na am mille chance ngir desandi ca Juventus waaye ñii di waa Inter lañ doon yaakaar ci ndimbal yëf ñëw na de xaalis ba lépp teew na kon kii di Conte ak gone yi ak yeneen gone ya mu yaakaar rek ñoo des ngir déwén ñu gisaat beneen Inter bu ama am doole ñu jugee Rome wutali Torino fekk fa Tuttosport Pirlo sur le fil lool la bind moom mii di Tuttosport nee na kii di Andrea Pirlo ci njéggim siraat la nekk bu gañewul rek ëllëg dootul des fële ca Juve nee na nag jël na coupe d'Italie ba pare nag waaye len na ko dese muy lan dem qualifié Ligue des champion déwén loole nag pour mu am ko day ñaan kan kii di Milan daanu pour mu mën a qualifié waaye ku ci gën a am chance wala ku ci nar a gën a am chance mooy kan kii di Gattuso Gattuso moom bu gañee rek mën na jël place su Juve Juve toog du dem Ligue des champions moom Gattuso ak waa Naples ànd dem ca Ligue des champions ba déwén. ñu jógee Torino wutali Milan fekk fa Gazzetta dello Sport Gazzetta dello Sport nee na l'Inter recharge dolli waat na doole jëda kii di zang nag ma nga ca xët wa sax yéen a ngi koy gis noone xaalis ba ñëw na doole ji gën naa yokk lu tolloog deux cent soixante quinze millions la ko ka koy jàppale ca liggéey ba indil nag waaye américain la ñu ay américain la ñu indi nañu xaalis bu bari bu takku ne ko nag liggéeyal sa liggéey rafet na waaye kii di Andrea Pirlo tey jii nag day euh, weekend bi daal day dem nag ngir lan gën a aju ca kaw moom mi di Andrea Pirlo ak waa Juve waaye kii di euh, Monza équipe la bu nekk ca Serie ba ña ngay wax ak kan kii di Buffon nee nañu ko Buffon comme yow nga ni bëggoo génn Italie te da ngay jógee Juve kaay fii équipe boobu nag ci fàttali équipe bu am ay mag la ndax kii di Balotelli ak kii di Boateng fa la ñu nekk di jongante Kevin Prince Boateng mooy mag ci Boateng bee nekk ca na ay doomu baay lañu moom mii kat nee na ko ñëwal ñoo ñooñee ak seen président ba mu nga tudd berlus Berlusconi Berlusconi ñëpp xam nañ ko ci football moom moo yor Monza Monza mën na am sax dina yéeg déwén ñëw ci Serie A ba ña ngi cay yaakaar lool moo tax ñu bëgg kan kii di Buffon mu ñëw magal gone ñu jugee Italie ne coow wutali Espagne Espagne nag bu ñu fa demee ca capitalu Espagne ba la ñuy wàcc di Madrid jël as yéenekaay as yéenekaay nee na deux capitaines un rêve ñaari capitaine waaye ñoo bokk lenn lu ñuy gént ñoom ñaar muy kan Ramos ak Koke kii di Ramos da koo bëgg a jël loole nag pour mu am day ñaan Atlético daanu moom mu fexe gagné moom mii di waa Real de Madrid ak Ramos waaye kii di Koke moom bu dóoree rek da koy jël te moom nee na da koo bëgg a jël ndax lan moom ginnaaw bi fa Godin jógee moo jël capitaine ba te jëlagul coupe depuis lors léegi dafa bëgg a jël coupe fekk mu doon capitaine équipe ba kon yëf ya dina neex lool ci diggante Real de Madrid ak kii di Atlético duel bi nag à distance lay doon maanaam ñoom ñaar tasewuñu Atlético day am kan kii di Real Valladolid lay jonganteel Real de Madrid Villarreal la Real de Madrid di am loolee nag samedi lay am jongante yooye ñu jugee Madrid ñoo ngi Espagne. ne coow wutali Catalogne dañuy dem jël sport sport nee na op Griezmann option Juventus Griezmann kii di Griezmann Juve moom la bëgg nag bàyyi di ko bàyyi gët ngir lan bu Cristiano Ronaldo demee rek ñu am ku ko wuutu te kooke ki leen ci doy ka nekk seen xel ñoom waa Juventus mooy Antoine Griezmann loole nag pour mu am journal bi nee na loole nag du am ci njënd ak njaay de lenn képp mooy am lan essance weccoo wala lan kii di Griezmann ñu abal ko ñii di waa Juve waaye kii di Antoine Griezmann nee na moom xelam dem nekku ca jamono ji lenn la bëgg des ca Camp Nou moom mii di Antoine Griezmann. ñu jógee sport jël Mundo Deportivo Mundo Deportivo pression la wax la ko waral mooy Barcelone ña ngay def lan ëllëgug Barcelone daal kii di Juan Laporta noppi na. ngir taxawalaat Barcelone gu baax Barcelone gu ñëpp bëgg dem nag jëndi ay joueurs nee na nag noppi na agent maanaam ñi nga xamante ni ñoo yor njënd meeg njaay ci joueurs yi képp koo xamante ni yow yaa ngi ci tànk ngir lan sa équipe jaay la dinaa wax ak sa agent bu dee Barcelone gënal na la te tamit méngoo na ak profil bi nga xamante ni Barcelone moom la bëgg man dinaa ñëw ubbil la samay buntu ñi waxtaan bu dee di nga amal njëriñ Barcelone ñu indi la ci équipe bu Barcelone bi. waaye fële ca Barcelone am na ci contrat yoo xamante ni wala am na ci joueur yoo xamante ni seen contrat dafa complexe trop trop trop trop ku ci mel ni Sergio Roberto la ñuy jël moom contrat am deux mille vingt deux lay jeex waaye moom xam la ne ni moom. bu ko Barcelone ubbilee bunt yi ngir mu dem rek moom noppi na ngir dem seeti feneen ngir mën a doxal ndax moom xale la moom mii di Sergio Roberto waaye ñii di waa Barcelone gone gii nekk fan la fële ca Manchester City tudd naan Adrian Bernabé Adrian be mii ab latéral gos la Barcelone nag noppi na ngir. indi ko ca équipe bu Barcelone ba xam nga moom Barcelone moo ko formé mais siti da koo jëndoon waaye moom contrat am dafay waaj a jeex bu saison bi jeexee rek day jeex Barcelone nag nee na dina ubbi bunt yi xool ba xam nu muy waxtaanee ak gone gi mu ñëw fële ca Barcelone ndax foofu këram la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp foofu la yëf yi yem di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan ngeen wéy di abone li gën a neex mu ngi ci kanam jaa jëf ba suba incha allah.